di sant itam bu baax a baax ci liggéey boobu ñu leen doon wax muy liggéeyu euh, deqale ba lu mel ne daara ja ak kër ga euh, loolu yëpp ñu ngi leen ci sant kër ga it kër Maam Mor Anta Sali la njabootu Maam Mor Anta Sali yëpp ñu ngi ci biir euh, di ji santaale itam nag sëñ mustafa sëñ Abdoulaye Karam ndax nag moom wax dëgg yàlla jëwriñ la ci liggéey bi daal ndax jàmbaar la lool fu mu taxaw mu ngay wut ay daayira sax yoo xam ne dañ fay ñëw at mu jot mu indi fi ay daayira yooyu ñoo ngi leen ci sant bu baax yéen ñi nga xam ne yéen ay waa kuréel bi itam ñu ngi leen di soññ bu baax a baax ci liggéey bi ndax yéen a ngi ci woon sax waaye ñu gën leen cee soññ rek ngeen taxaw ci taxawaay boo xam ne taxawaayu liggéeyu sëñ bi la daal waaw ndax euh, sëñ Muntaxa moom biñ ko ko waxee xam nga moom loolu sëñ Sidi Matar yebaloon waaye def na ma liggéey bi yëpp day benn liggéey bi sëñ Tuubaa rek moo tax na nag kon ngeen gën góor góorgóorlu bu baax a baax ñoo ngi leen ci soññ daal ngeen wax ko mboolem taalibe yi yëpp rek ku ci ku ci ku a def daal nga xam ne da maam sa liggéey bi Sëñ Tuubaa la rek waaw baax na jërëjëf ألا إنني أثني على خير منعمي ولا أشتكي للخلق من فقد أنعمي فمن ظنني في غربتي ذا تذلل إلى غير مغن واسع فهو قد عمي لو أشتكي ضعفي وفقري وغربتي وأرجو رجوعي عاجلا خير منعمي شكوت له عجزي فأشكى وكان لي بما فاق ظني وأكرم مكرمي نهى جانبي من غرهم كفرهم به فعنهم حماني طاردا كل مجرمي لو شكر مني راح حاجيا منه مطلبي بلا كلفة مني وقد زال مغرمي لئن غرني من غر أو الظن حاسدا فما غرني من قادني بالتكرم فمن يلقني للجاه في البحر داقلا فقد جاءني في البار جود المكرم ومن ساءه كوني لمولاي عابدا وكوني خديما لشفيع المقدمين فإني له في البر والبحر عابد خديم لمنجم من دواعي تندمي ومن صد عني فالمواهب أقبلت من الواسع المغني الحفيظ المقدمين